ba wax li buñ jàpp ne dama far déet. Ah, ah. Sénégal at jàmm lay wut. yow réew mi ngay ñaanal. waaye yow may ak mi réew mi. ñaata yoon laa taxaw wax ci parcours Ousmane Sonko. Mhm. waaw Macky waxuñ ne moom laa faral. waaw ñaata yoon laa taxaw wax ci parcours Macky. sénégalais laa je suis mhm. man sama kër gii. Mhm. man maa yor sama xam-xam gëstu ko. waaw kenn fekkewu ko. ba mu koy gëstu ba am ko. damaa taxaw di wax xam-xam. xam-xam bi may wax nag. bi mu ni mu ko gisee rek laa koy waxee bu ko waxee nag. waaw dafa mel ni aaye boo tibb rek commencé tàmbale. Mhm. boo tàmbalee ba dem ci aaye ba suratul rahmaan. waaw ba fi yàlla di waxee ne maanaam taqulaax ragal yàlla sa jëmm. Mhm. boo ragalee yàlla ci lu baax dem fu baax boo ragalu yàlla dem sa kër safaan ba nga jàpp na yow yow muy waxal mooy ki nga xam ne doo julli. waaw doo or nga jàpp ne aaye ba yow lay waxal ah déet yaa ngi juum aaye ba la wax at saar ba. boo gisee sa bopp yow la man noonu laay defee ci xam-xam asaraat te amu si askanu Sénégal mm-hmm. ni ma koy defee koy defee noonu li may wax dama koy wax te mu waxee dañ koy teg bët mm-hmm. xam-xam lay wax faruma fii mm-hmm. faruma faa te li may wax buñ ci tegee seen bët ku ma weddi soo bu jotee nga teg sa bët waaye man gunuñ maa bëgg Ousmane Sonko waaye nag Lamine maa ngi ñaan yàlla réew mi nekk si jàmm waaw parce que fii ñu toll nii jëm nii dafa am loo xam ne moo feeñ ci